seen link yow moom Ousmane Sonko lu jëm ci coowu jamaa bi jàpp nañ ko ci suivre nga actualité boobu. suivre naa ko. ok ban commentaire nga gis ci loolu. Euh, <clears throat> man personnellement euh, àjjuma ci ñetti waxtu ci ngoon noor naa toog ak président Diagne Ndiaye. ci waxu mhm. Jeux olympiques. Mhm. Euh, mhm. yàlla may na ma que ci man. te am naa sañ-sañ ñaan ko yenn yi. Mhm. parce que xam naa ne qu'il y a eu des laa mën a wax mooy lu maître Moussa Diop wax munu mu wax que dëgg la munu mu wax que du dëgg. Mhm. wante as néew lu ma xam parce que tout de même jàng naa euh, géographie jàng naa science naturelle man dama am tool ma am forage dans la zone de ñaay man ba maa foree maa ngi foree 186 mètres pour am ndox parce que dama dem. ministère euh, enfin direction de l'hydraulique ma xool cartographie bi ñu ne ma yow mënoo am ndox avant 150 mètres ba may egg sax ay mètres maa ngi maa ngi commencé woon di jaaxle ñu ne ma mais continuer léegi nga gis ndox gi. Mhm. wante biir vallée du fleuve mooy toute la vallée du fleuve Sénégal foofu ku passé 30 mètres mënoo muus wane bañ a dal ci ndox moo tax su ñu ma waxoon jamono ñu ne ma jamono biir Sénégal oriental ma am ci xel ñaar. parce que Sénégal oriental xaw na jege tuuti Guinée. Mhm. te y a des spécialistes qui disent que biir Guinée am na am na jama. parce que zone boobu mën nga gas dépasser ay plusieurs centaines de mètres ay huit cent mètres neuf cent mètres doo gis ndox man damay joxe exemple ba ma nekk ci kaso gi Tambacounda premier jour ma ñëw yeewi rek bëgg a sangu mais du ma ko ñaareel foofu laa xamee que en fait pour nga am ndox Tambacounda il faut forer au-delà de de six cent mètres. donc bu may sangu balaa may dem tëddi daay root ndox ndax su may mën a yeewu mën a sangu ndax ndox bu tàng donc y a des zones sooy creuser même pas cinquante mètres da ngay dal sur les nappes phréatiques ndox te wax dëgg yàlla soo ngeen demee ci ay dëkk yu am jamono comme ay Afrique du Sud su ngeen gisee saa yi booy am ay accident dans les mines c'est parce que ils ont creusé en profondeur mm-hmm. donc man personnellement xalaatuma que dans la vallée du fleuve mën nañ fa am ay minéraux moo xam or moo xam diamant moo xam fer moo xam lu mu munti doon mais nag mën naa juum maintenant nag je l'ai vu effectivement brandir des preuves bon mënu ma wax que ñu mu doon joxoon ñooñu amuñu droit porte plainte ñun lu ñu mën nag mooy ñaan njekk parce que man lu mu bon bon bon mës naa dem këram di ko jaale soxna bu gënoon àdduna mhm. il m'a présenté ses enfants bon maître Moussa Diop kenn mënul wax ne ni que bëggul Sénégal je considère que c'est en c'est un patriote il a peut-être fait une mais il faut trouver d'autres moyens parce qu'il n'y a pas que la prison et puis Macky Sall tout de même moom tamit mi ngi dem na dawal yërëmande même grand bi su erreur mais na dawal yërëmande fii àdduna la je crois que y a que ça à dire quoi. d'accord.